dem assemblée dañoo gis député euh, bi nga xam ne mooy euh, euh, Mimi Touré ba mu démissionné ca benn Bokk Yaakaar dañu ne ko kaay ba mu ñëw ñu ne ko tegal suñu poste de député mu dem nekk noonu inscrit di ruube ñu nangu poste député bi léegi ñu gis ne nag waa taxaw itamit dañoo démissionné ci yeewi askan wi yi nga xam ne ñoo bokkoon dem wuti ji ñu bari di xalaat du samay xalaat ñu ni lu tax yeew yi mënu ñoo jëfandikoo loolu ñoom itamit daal di dàq ñi nga xam ne ñoom ñooy député yooyu waa sa jamono sa jamono daa opposé opposé. sa jamono daa opposé. sa ah, jamono sa jamono maa opposé. voilà euh, lii ab parti la. Hmm. parti bu APR. wéli coalition la bu ànd. léegi nag waxtaan la rek ak waxtaan. coalition ay ay ay ay ay non ay signature moo leen tënk. parti parti ak coalition mais signature moo leen tënk. mais parti ak coalition bokkuñu li ñuy. peese bul ni rek aw waxtaana leen boole. ay signature leen tënk boole bu leen signature ba léegi gis nga ne ñu dàq leen ñu si bëri signature de boole. di waxtaan bi waaw d'accord waaye li ñëwal kon. bokkuñu. Khalifa Sall. waa yeewi askan fa dogalut mënuñu ko dogal si kawam. waaw yow loolu ngay dëkk woon wax ba tey ñu dàq ko. ba léegi kon ni Assane. Assane Assane teg ñu ko de. Khalifa Sall waa yeewi askan wi koo dàq de. da naan démissionné na bu dëkkee démissionné am na mais mënuñu koo dàq ndax lañ waxante woon xalifa Sall nekk kees su bi am waaye audio tontuwu ko après ñu ñu dem kon ba léegi ñoo ngi bokk groupe d'accord ñoo bokk groupe gars yi dañuy wax noonu rek quitté wuñu groupe ba mu ngi at mi la fa d'accord léegi nag bu ñu jàpp affaire Mimi Touré ko jël teg ko ne loola affaire parti bu APR la bokkoon ko nekk sa ay at liggéey bi egsi fii Mimi Touré ñëw faluñu ko mu ni kon damay génn non APR mooy parti mais Benno moom ab coalition la. mais dama ni Mimi ah. ko dàq. Benno coalition la. APR parti la Mimi Touré APR la bokkoon doonoon directeur campagne campagne yi ñëw. ñu ni ko mu ni day falu mu ñu ni ko faluñu la mu mer génn. mais ci Benno la nekkee député. maanaam coalition Benno ci la nekkee ah, député. si APR la nekkee. waaye léegi moo tax ma la taxawu giit ci lan la bokk. naa taxaw gii bokkut leeru bennoo moom Mimi Touré APR la bokkoon laa la wax. d'accord monsieur d'accord monsieur waaw bu fekkoon ni kii la lii ab ab coalition la ay kuréel yu bari nekk sa bokkut mënuñu koo dàq. waaw ah, bisimilah waaw jeex na. non mënuñu ko dàq kay wax nga ko waaw. waaw mënuñu leen a dàq jeex na. lu dàq gi am buñ buñ jël mi affaire Mimi bi ak affaire ñoom Xalifa bi di ko boole du benn. moom laay leeral journal yi wax loolu nañ ko baax. <laughs> <laughs> jërëjëf Assane Alaaji euh, ñu bari daal ñu ngi comparé donte ne Assane nee na ko comparé bokkul waaye daal ginnaaw ba ñu démissionné daal nee nañu lu taxaw wala lu yeewi di xaar ci dàq député yooyu. waaw loolu nag mooy question bi lan la yeewi di xaar c'est que bu fekkonte ni bi yeewi moom bind nañ est-ce que bind nañ tamit pour def li nga xam ni moom la ñu war a def. Hmm. parce que bu fekkente ni bi defuñu li ñu war a def blek pour ñu mën a comparer mbir yi. Euh, du mën a ne. Mhm. mais bu fekkoon ne yeew yi def nañ ko daal di ne nañu dàq député yi comme ni ñu defoon Mimi Touré. Hmm. laa bu boobaa ñu ne yeewi def na ko parce que mbir yi man gisuma ci différence. Hmm. li ma gis mooy coalition yeewi askan wi. Hmm. dafa amoon xam nga coalition intercoalition bi ñu doon wax loolu ci wax rek la nekkoon mais amul ca assemblée nationale. Mm maanaam wàllu ak yi loolu moom ca fot la gars yi ñoo wutoon nu ñuy doxalee hmm. mais wallu moom li assemblée xam mooy coalition wallu hmm. moo fi ne ak coalition yi ak coalition bennoo bokk yaakaar hmm. coalition Benno Bokk Yaakaar nag am na ku ca jóge ñu dàq ne non inscrit la mhm. ba mu waxee non inscrit la mhm. ñu dàq ko mhm. waa coalition ba daal ne nañ ko dàq donc coalition Yewwi Askan Wi tamit ñii bu ñu nee non inscrit lañ waaw donc war nañ leen a mën a dàq vraiment parce que coalition bii moo leen dugal assemblée nationale ba ñuy dugg dañu dugg ci coalition Yewwi Askan Wi du dëgg. si léegi nag bu fekkente ne bi nag defuñu ko moom peut ñoom ñoo ko defut. waaw mais ñoom dañ koo waroon a def ñu xool ba xam. Mhm. ndax danañ appliquer li ñu appliquer mimi mais loo defagut moom mënoo wax ne appliquer leen ko. Mhm. waaw kon donc léegi est-ce que ñoom waaye Yewwi nee nañ dàq leen nii waaw parce que waruñoo doon non inscrit loolu peut-être ci kanam. ci yëg leen di xëy na am débat boobu mën na poser. Mhm. mais en tout cas daal coalition moo dugaloon ñële. ne ba ñuy ñëw ñëwuñu ci turu taxaw Assane nee na bokkul ñee APR lañ bokk la rek ba ñuy ñëw ñëwuñu ci turu taxaw dañoo ñëw ci turu Yewwi Mimi Touré tamit ba ñuy ñëw ñëwuñu ci turu APR dañoo ñëw ci turu Benno mhm. donc même chose mooy li nga xam ne kii coalition moo ko fal léegi nag des na nag ci waa coalition yi ñoom ñu ne dàq leen ñi bu boobaa nag bu fekkente ni bi dàq ñu ne ñu xam ni kon traitement yi demeewut noonu. non nañ bàyyi ba ñu am parrainage ñu déglu ah nañ bàyyi ba ñu am parrainage non non ci jamono ji ñoom. non non lañ waroon a dàq. non non alaaji bu ko defee xalifa. non non teel a ñàkk. non non alaaji kenn mënu leen a dàq xanaa ñu alaaji nañ bàyyi ba ñu am parrainage ñu doog leen a dàq. nañ bàyyi ba man de jàpp naa ni. wala boo daal képp koo xam ne yaa ñu gën a xam jëf yi ni muy demee dafa am leneen. Hmm. nga leeral ñu mais man en tout cas dama jàpp ni ñaar yi hmm. benn képp la waaw parce que kële coalition moo ko dugaloon assemblée. Mhm. dàq nañ ko ñii coalition moo leen dugal assemblée nationale kon ñii bu fekkee ne def nañ ne ñii nañ leen génn ci kii bi parce que waruñoo dem nekk non inscrit là bu boobaa ñu xool ba xam ndax àtte boobu ban façon àtte lay doon. d'accord.